ci guddi alxames juróom benn fan ci weeru sulet jëm aljuma ci suba benn côté ci marché Zinc dafa tàkk ba jeex lakk gi nag ci ay waxtu yu néew jaaykat yu bari ñàkk nañu ci seen place wala sax seeni ay njaay naam sax amul ku ci ñàkk bakkenam waaye njeexital bi metti na lool ci commerçant yi lu métti lu métti ci xol ba kenn mënu koo wax ndax euh, kumu dalulitam, dalul itam war nga yeg yeg dal bi dal ci kaw gaay nga xamne ne ay waaye borom ker kese lañu euh, yaakaaruñu woon fenn fu ci bir marché bi tay ji nga xey ñew fekk sa alal li nga yaakaaroon nga fekk lepp sey dara gën ko metti ci xol métti na na day na war lolit euh mais sante yalla en tant que bam amé to ben bakkan rotu fi Euh, sant yàlla moo ñu war ñoom ñëpp nañ sant yàlla too xam ne karaw gu ñuul eggagul fu mu war a amee bay egg fu mu ñakke doomu aadama moo gën lii doomu aadama moo gën lii métti na ci ñoom nag ñu di leen mostaw ñoom ñëpp ak kum dal ak kum dal sa mbokk ñu ngi la koy mostaw. moom mënu ma koo xayma nag ko démb wàcce naa valeur bu 6 millions. waaw tamit sama frigo yëpp yàqu ñu ngi nii. ñeent frigo place bi maa borom bi maa borom yëpp man maa borom 81 euh, nekk sama waa waajur parce que sama maam moo sancoon marché bi année 54 ma juddu fekk samay waajur nekkandoo ñoom ba ni ma fi amee teraanga li ma si am fi laa ko amee waaw lépp daal fi ko defee képp ku la wax ne la lii la waxu la loo xam lu am la parce que loo fekkul mënoo koo nettali man daal li ma ko mën a wax mooy mbiru suñu borom la deux heures la commencé taal deux heures demi woo nañ ma téléphone ma ñëw fi ay trois heures ba presque huit heures ah sapeur wax dëgg yàlla mention spéciale ay jàmbaar lañ la daj nañ ko fi bu dëgg dee dëgg lakk gi suñuy xayma limu yóbbu ci magasin tabax walla baraak bari na lool yu ci bëri dañoo mujjee soppaliku doom ndax liggéey bu rafet yi ci sapeur pompier yi def gaawantu ngir fay ko. daanaka fii ñu fi nekk ñëpp ay néew di doole lañu duñuy xëy fajar ñëw di daan seen doole. am na ñu bëri démb dañoo ndugg ji woon ba pare. bu ñu ndugg jee ñëw ranger seen ndugg yàlla dogal tay, yalla indi tay li yàlla bu mu indee lii ah itam nyom ñëpp nag ñu nangu ndogal lañu itam marché bi tay boo gisee tay nu mu mel marché Zeng tay nu mu mel Nyep ñëpp du ñoo gore kenn jaayul kenn ubbiwul parce que lan moo tax kenn ubbiwul tiis bu ñu am un nakar bu ñu am mais nag lépp delo nañ ko si loxo lakk ji man sama kër sorewu fi mais eh, man 4 heures du matin laa ko yëg damaa fanaanoon si kaw terrasse bi ma yëg ay 4 heures du matin ba ma ko yëgee 4 heures du matin ma ni ko ah après si laa solee sama yëre rek départ ñëw nekk fi dégg naa nag ñu naan deux heures et demi la commencé wala trois heures waaye sapeur yi ndeysaan ñu nekk si jàmbaare bay bëgg a dee itam jàmbaar nañu de def nañu lakk bi leen ëpp doole rek. te fii moo tax ñu naan marché Zinc fii fii boo déggee marché Zinc fii moo tax ñu naan marché Zinc ay place yi bëre place yi ëpp nañu cent ëpp nañu cent place daanaka jamono ji ñu toll léegi ay milliards la ñuy wax léegi kenn du wax ay millions ay milliards la ñuy wax moo fi yàqu moom dong la ñuy mën a wax saaku soble dix-sept mille cinq cent wala 17 750 démb moom la ñu jaayee ñu wàccee woon seen soble mi ngi nii ñu si ëpp seen soble dafay yàqu. li waral lii kenn xamu ko ba léegi ci sunu sukkandikoo ci victim yi ñoom nag danoo jàpp ni ndogal yàlla moo ñëw. métti lool tiis bu métti moo dal suñu kaw waaye ñun jaam lañ ndax jaam day nangu ndogalu yàlla waaye métti na fu kanamu méttit nekk métti na ko ndax fii li fi li yàqu tey ay milliards ñoo fi yàqu ay milliards. gis nga sama bàjjana fi yàqule fii baaba Babacar suba ba tey ñoo ngi fi 6 heures du matin ba tey ñoo ngi fii dañoo dimbalee dimbalee dimbale ba sonn ñu nekk nag ay jaam yu nangu dogal mënoon nañoo taxaw waaye ñoom ñëpp ñu nga seen kër toog mu métti lool nag waaye tey dëkkandoo jàmm rek ci gën ndax dëkkandoo yi ñëpp ñëw nañu wallu si leen fekk us dimbale si leen sànq ba tey maa ngi nii sama taabalu bàjjan nduura bi mu baax uuf ñëpp si nu meeru nat kenn yéene wu ko li jàmm rek lañ ko yéene woon waaye jàmm pexem yàlla ak dogal moo duy laan mbay sama rakk jëkkër la bagage am yëpp a yàqu firgoom yeeg yëpp a lakk place am yi amu ku des marché bi daal ñëpp a yàqu la soxna si waaye nag ñoo ngi woo waa nguur gi Amadou Diarra ñëw na fi tey si suba naqarlu na ko wax dëgg yàlla naqarlu na ko ñëw na fi tey si suba ànd ak lu ñu xaar si moom mu ñëw mu jéem a xam ne fii ay alal bu bëree fa yàqu mu dimbale ñu lum ñu mën a jàppale jàppale ñu ñu defaraat marché bi ndax marché dëkk mënta ñàkk marché. bilan bi nag rëy na te jaaxal na ku nekk ndax doomu aadama yi ci perte seen business bëri na jamono ji nag ubbi nañu ab enquête ngir xam lakk gi fu mu jóge